soldaar see xam nañ la baafuli commandant yee xam nañ la bés Tuuba borom Tuuba gouverneur ak soldaar si xam nañ la baafuli commandant yee kàngam nañ la bés Tuuba Kajoor Bawal siin saalum ak fuuta ak jolof ci say may la ñuy baawaane yaay géej gi wër tuuba borom tuuba ku koy tëkkalee ku xawsu xam naa ne moo réere ay mbiram ne sëñ bamba yaa tabb xawsu xut boo seen leere xew tuuba ku ci bañaan nag maam bamba xam naa dëkku xamul gu may gis leer ak jantaa yem naa sëriñ tuuba borom tuuba danga bay daggal nuy dagga yaa tax nu am lu ne cerey lay cerey ngëmb ak maraaki sa xew tuuba danga xare not waa mi borom tuuba yow jàpp ruuy jël nu jël nun alal jeeg jëm yaa dëddu jëm tuuba danga fekk nuy ñàkkee ka fandee lekk cox nga jox nuy layak taalaale jaajëf sëriñ Touba borom Touba danga tax nu bew ñun ngir mbëtëng mu ma doonoon ndawal nga jox nuy talaa bii di wa gerte jox Touba borom Touba danga fekk am saqan wajan lan fi daasanoo nga seexal nu jox nuy junni askey sëriñ tuuba danga fekk ñu ndoomaake ay at ci néegi ñax nga taaxal nu jox nuy senge ñuy sakketoo tuuba danga fekk ñu ñaake ka fa lekk tox nga jox nuy layak taala li jaajëf borom tuuba andil nga nu yow seex bamba kii yu xel dejul tabax nga fi jàkkay doj judul mab fi Tuuba andil nga nu yow Seex Bamba kiimaan yu xel de tabax nga fi jàkkay doje judul mabbu fek tuuba ataayaak fek taalaale baawoon xamuñ ko woon daxaara xorom lañ daan baxal door a xëy tuuba le baawoon xamuñ ko woon daxaara xorom lañ baxal dóor xëy tuuba tisbaari jeewal jamoo waral màggal gi waaju ko màggal am palaas ca gaal ga tisbaari jeewal ja waral màggalu tuuba waaju ko màggal am palaas ca gaal nga tisbaari jeewal jaalan ko jox mi daay ma njool ma kannaan ko foofa geesu gis ma tisbaari jeewal jaa ku dem géej géej kon réew mi ñee firawna ak diigam gi tisbaari jeewal jaa yawmal sabti la Sénégal am ndam lu rëy fa bayti tisbaari jeewal jaa ci yawmal sabti la Sénégal am ndam lu rëy fa bayti tisbaari jeewal waral tubaab ba naan mu am xofraana tisbaari jeewal jaa moo waral tubaab ba naan tuuba kuñ fi suul mu am xofraana borom tuuba bam taxawee fa béb ga gis na leeram ga juuma ya naan ko bam génnal ker ga bam taxawee fa béb ga gis na leeram ga njuuma ya naan ko bam génnal ker ga jinne ya booloo naan borom tuuba ñoom doole fii tuuba doo fi tabax jumaa di xas di xoole jinne ya booloo naan borom Tuuba noom doole fi Tuuba doo fi tabax juma di xas di xoole xanaa xamuñ ka jaaxaloon fa géej ga la bayawa ruxbaan ñi xut géej ga xanaa xamuñ ka jaaxaloon fa géej ga sëriñu maam Seera Faal da boy maam Seyna bu Njaay xanaa xamuñ ka jaaxaloon fa géej ga labay awaa ni xutbu géej ga xanaa xamuñ na bamba naan na kaas yaa saribtu kasal xawme fab seen ngaaya xanaa xamuñ na bamba naan na kaas ya saribtu kasal xawme fab seen ngaax ya biraasu man baara se ni yoruñ na kon nu boole seen junjung yaway ko barke borom